mbokk yi euh, nuyu man la seen député euh, Guy Marius Sagna man la seen ndaw euh, seen surga Guy Marius Sagna gis ngeen góom yi nga xam ne moom lañ ma defal nii ndaxte suñu policier yi ñenn ñokk président Macky Sall da leen jox ordre montre ça voilà président Macky Sall da leen jox ordre nañu bàyyi di tirer grenade lacrymogène yi ci kaw ndaxte yoonu grenade lacrymogène mooy kenn kenn waru ko tirer droit kenn waru ko tirer di viser bopp wala yaram wala tànk waaw gis ngeen pantalon bi nu mu mel di euh, marque bi nga grenade euh, maanaam lacrymogène bi d'accord donc moom moo def góom bi euh, ci sama donc lu muy wane président Macky Sall tey jii nii ni mu reyee suñu ak bant ci mars 2021 nous la continuer rey ay doomu aadama waaye dañuy sant yàlla xamal wala bu ko mu jël candidat président Ousmane Sonko dina nek candidat duñu nangu m'ulikide. liquider benen candidature xex bi day continuer daanaka sax commencer gul na xamné ne jël suñu bakkan du tax xex bi jeex gañu du tax xex bi jeex et que duñu nangu Président surveiller bi nga xamné mom lañu tek président Ousmane Sonko duñu nangu ñu liquider ko politiquement ba du nek candidat duñu nangu mu liquider kenen may wax sénégalais yi président Macky Sall mom mi di détourner am amu Sénégal mom waradau. wara daw ñun grenade lacrymogène waruñu alalu rewmi François mankabu rey ñenen ak ñenen Mariama Sagna suñu fuk fuk ak mars 2021 ñom ñoo wara daw donc ñun waruñu daw ci kanamu ay grenade lacrymogène waruñu daw ci ay kanamu sirène waruñu daw ci ay auto police auto gendarmerie bi euh, euh, day continuer la lutte continue et seule la lutte libère ku kuy bëree daan de ku kuy bëree daan te incha allah dañuy daan Macky Sall président Ousmane Sonko nekk président deux mille vingt ak deux mille vingt quatre yëpp nekk ay candidat jërë ngeen jëf.